Eh, des na tuuti rek. jëmmi téere yooyu nag. jëmmi téere yooyu nag. dama yaakaar ne. dama yaakaar ne. buñ ci nekkee. buñ ci nekkee. dana mas a bari lool. dana mas a bari lool. loolu moo tax. loolu nag moo tax. bëgg ñu ko kër boppam. bëgg ñu wutal ko kër boppam. bii ba yéeg teg sëñ Moussa foofu di dara xajatu ko. daaru mi naam yëpp tubaarkalla waaye damaa bëgg bii moom ñu dugal ko këru boppam ngoo xam ne mbindum hmm. sëriñ bi dong moo ciy nekk këru boppam xam ne mbindum sëriñ bi képp moo fay nekk loolu mooy ngeen xamaa ko ci ngeen xamaale ko ci dañ ko dañ dañ ko daa taw sóobu nag fi saasi dañ ko ci sóobu ci saasi bi may xalaat bi may xalaat moom agsi ci xalaat wax sax bas mii ba waxtaan ci ak sëñ bas mi. ak yow mi ak man mi. waaye fa xalaat di mujj. fa xalaat di mujj. mooy ñu ñu def ko foofee ci ci liggéey boobee. ñu def ko foofu ci université ba. ñu def ko foofee ci université ñu seet fu ko fa def. ñu seet fu ko fa def. boo xam ne moom moom moom lu téere yi bari bari dañ ko ci fàggu ba nga xam ne. lu téere yi bari danañ ko ci fàggu ba nga xam ne. lu am doonte ay ab angaar la itam. donte ab angaar la itam. dana fa xaj dana fa xaj. loolu rek laa ci bëgg loolu rek laa ci bëgg. ngeen xamee ko noonu. ngeen xamee incha allah man damaa fi moo tax léeg-léeg may may bëri yu may ji ma. sa yaatukaay. léeg-léeg damay a moom mii déyoon naa ko ne ko. moom mii déyoon naa ko moom sëñ Aatu bi kër googu. ne kër googu. maa ñoom ñoo koy liggéey. moom mii sëñ Aatu moom moom ñoo koy liggéey. mënoon na maa wax Cheikh Bass. mënoon naa maa wax Cheikh Bass. ak sëñ Ahmadou Badé bi ak sëñ ñu seet ñu seet. ñi kuñ kuñ koy liggéeyloo. kuñ koy liggéeyloo. ca ca ca barab ba. ca barab ba ci université ba. ñi am yéene bari na lool. ñi ci am yéene bari na lool. waaye damaa xam ne lii moom. maa koy liggéeyal sama bopp. moom maa koy liggéeyal sama bopp. sama waa ji nag moom laa ciy àndal. sama waa ji di say àdduna rek moom laa ciy àndal. ndax tawféex ji ñu am ñoom ci xaside yi. ñoom seen mbir yëpp. ñoom yi rek. luñ ci ci boole rek dañ ko caa boole. loolu nag mooy seen tawféex ju rëy. ndax xaside yi mooy lépp. kon nag noonu rek. nañ daa tàmbali. li ko tàmbalee li ko tàmbalee. nee sëñ Ba. nag suñu aatu ñu daal di seet fu ñu koy tàmbalee. na seet bu baax ndax la ko tàmbalee ci téeméeri million ba milliard. man caabi moom mën nañu téeméeri million ba milliard. caabi laa ko yore bëggee rek caabi la ko yore. te as gor su waxee ci digg penc ci digg penc. waaw ma dugal boppam. téeméer ba milliard. bu àndul ak benn coono. léegi nag dañ ma ànd si émission bi ak yéen dem foofu seet fu ñu ko war a def ko tam. kon ñu ànd ñun ñoom ñoo ñëpp ci sama yàlla ko bëggee rek. mu defee ko téeméer ba milliard. maa lay teew maa lay teewal maa lay teewal maa lay teewal.